asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet ba rawatina ci chaîne bi ak ci tiktok bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ngi leen di baalu àq ñu ngi leen di baalu àq ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfeex ak saadatu daara yi ne di ko saku ci yen mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci ajuma ji di leen waxal jumaa mubarak ah, comme niñ koy baaxoo di ànd ajuma ju ne ci ay tegtal yi ñu leen di baaxee te ñuy jàpp ñaare muy nekk lu yomb def te ci li ci gën a bari muy bàyyi ko ci alquranul karim muy bi yàlla bu màgg bi mbokk yi tey nag dañ leen di tegtal moo xam ne tegtal boo am solo la boo xam ne mag ñi euh, daa ko jëfandikoo muy tegtalu mag ci xale boo xam ne dafa tàmbulee luubu luubu mooy maanaam lu mel ni di fab yëfi jàmbur maanaam sàcc ci gàttal wala xale buy tàmbalee tox wala kuy tox te nekkagul mu kàllaf wala muy naan wala daal muy def yëfi caay-caay wala sax fu mu toll di dóore tegtal boobu lañ leen bëgg indil boo xam ne ci loxo lañ koy def moo xam ne yow dañ la indi loxob xale bi wala yow ci sa jëmmi bopp sa dooma koy def ku koy bind nag ñëpp ku ko mën a bind nag baax na moo xam góor la moo xam jigéen la bu ko defee nag bu fekkee xale la boo xam ne nekk nekkagul kàllaaf maanaam nekkagul masiyor te caay-caay yi muy def ak mboolem caay-caay bu mën a def bu doon sax ak góor jigéen la boo ko ko defalee ci kàttanu borom bi ak ci barke alxuraan ak ci barke bi yonent bi ak ci saxaabaam loolu dana tàggoog moom Ah, nii nag nga koy defee da ngay tàllal da ngay téye loxoom ndeyjoor ba mooy main droite nga bind ci biir tenq li tenq mooy ci biir loxo bi nga bind ci bisimilah rahmaani rahim mën nga ko bind nag ak big footar nga bind bisimilah rahmaani rahim ci biir tenq la. bu ko defee nag nga fa nga di bind ci baaraamu juróom juróomi baaraam yi juróomi yi da ngay tàmbale ca baaraamu déy ba baaraamu déy bi mooy baaraam bu ba ca gën a dijji nga bind ci abu bakrin as-siddiq radiyallahu anhu moom ngay bind ci baaraamu déy ba bu ko defee nga bind ca baaraamu sànnikaay ba baaraamub sànnikaay bi moo topp ci baaraamub déy bi moom nga bind ci Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu ko defee nag boo xam nga baaraamub digg bi euh, dibbutu baaraamub digg bi moo ci tege mooy baaraam bi nga xam ne moo ne ci digg bi nga xam moo sut ci baaraam moom danga koy jël moom da nga koy jël doo ko bindagum bu ko defee boo ko jëlee nga bind ca baaraam ba ca tege mooy baaraam ba sës ca baaraamu sangaleñ ba baaraamu sangaleñ mooy baaraam ba ca gën a ndaw bu ko defee nga fa baaraam ba topp ca baaraam digg ba moom yaa ngi cay bind Osman ibnu Affan radiyallahu anhu bu ko defee da nga soog a ñëw ca baaraamu sangaleñ ba. mooy baaraam bi ci gën a tuuti moom yaa ngi ciy bind Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu xam nga baaraamu digg ba muy baaraam bi nga xam ne moo sut ci baaraam yi moom bindagoo ko bu ko defee na nga soog jawaat ca moom moom nga bind ca sayidina muhammadin muhammadin wala sayidina muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom nga ciy bind boo ko ci bindee ba noppi nga ne yow yonant bi yaag say saxaaba dénk naa leen diw mii da ngay tudd turam fekkoon na xale bi moodu la tudd da nga naan yow yonant bi sallallahu alayhi wa sallam yaag say saxaaba dénk naa la moodu mii ba mu lu bon lii muy def moo xam day fab na nga ne dénk naa la moodu mi mu bàyyi sàcc gi muy def wala dénk naa la moodu mi mu bàyyi tox bi muy def wala mu bàyyi dóore bi muy def wala mu bàyyi dox bi muy def maanaam lu muy def rek boo bëggee mu bàyyi ko ci caay-caay ngay tudd bu ko defee nga wax ko ñetti yoon daal di tifli ci loxo ba daal koy jox xale bi mu mar ko la bind ngay fexe xale bi mu mar ko wala boog nga raxas ko maanaam bo may raxas ko ci ci fi barab moo xam kaas la wala bool bu ndaw soo paree jox ko ko mu naan bu fekkee lu bari la jox ko ko mu sangoo mu naan ci sangu ci boo ci def rek baax na. boo ko defee incha allah ci kàttanul yàlla loolee mu daa def ci caay caay dana ko bàyyi incha allah lii nag tegtalu mag la moo xam ne mag ñi daan nañ ko jëfandikoo te daan nañ ci gis résultat bu baax a baax kon maa na koy ñaanal yow mi ci saafara suñ borom saafaral la ko ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci barkeb saabaam kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii di leen ko ziara ci àjjuma ji di leen fàttali nag ngeen di wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy dundal bokk na ci li koy yëkkati